Ndaw madame nekk responsable communication au niveau de ONG ACDER donc euh, projet bi mën nañu wax ne euh, dañu ko dañu ko ACDER ONG ACDER dafa ci ànd ak ay partenaires am mm, lu mel ni CRDI mais aussi lu mel ni ay partenaires canadiens pour que ñu xool ñu ñu ñu saytu au niveau du Sénégal euh, dimbali ministère de la santé pour que mu am ay euh, ay ay matukaay yu mu mën a jël pour mën a régler la motivation des bàjjenu gox euh, au niveau du Sénégal parce que ñëpp xam nañu ne bàjjenu gox yi bari nañu liggéey lool bu ñuy liggéey mais malheureusement amuñu benn motivation. léegi ñu ne dañu bëgg a def benn projet interventionnel boo xam ni mi ngi démarré depuis 2010 euh, ñu ne nag dañuy tànn ay gox lu ñuy wax gox pilote maanaam dañuy am ay tànn yu ñuy tànn ci Sénégal ñeenti gox ñeenti gox yooyu ndànd ci la bokk. Kaolack ci la bokk Diawla ci la bokk mais aussi Géejawaay ci la bokk ñu ne dañu koy dañu xool naka la ñuy euh, saytoo euh, recherche def recherche maanaam équipe recherche bi def ay recherche pour ñu xool ban modèle la ñu mën a proposer ministère de la santé parce que en fait dafa ko soxla ci loolu aussi ñu ne mën nañ dañu pour pour pour accompagner aussi bàjjenu gox yi dañu leen defal lu ñuy wax activité génératrice de revenu maanaam activité boo xam ne dafay am euh, koom dañ ciy mën a jël koom-koom pour mën a am peut-être assurer seen motivation ci loolu la ñu nekk pendant cinq ans tey nag ñu ñëw fii ndànd pour mën a xool présenter leen déjà résultats yi ñu ci am mais aussi di clôturer aussi projet bi parce que en fait euh, voilà cinq ans ñoo ngi ci dañu leen euh, tàggat defal leen ay formation ci module bàjjenu gox yi avec le ministère de la santé élaborer leen ay support mais aussi tàggat leen ci gestion administrative et financière pour que ñu mën a xam nu ñuy saytoo seen xaalis